bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin ayuha alixwatu alkiram uxayikum bi taxiyati alislam taxiyatan min indillahi mubaarakatan tayiba wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh dañuy am mbégte lool ci di dalal mbokk bi toog sunu wet di oustaz Said Ly di ko dalal di dalal tamit mbokk yi nga xam ñoo ñëw teewee ci waxtaan bi ñu war a nag wax ci mawqiful muslim amaama shabakaati tawaasul al ijtimaai mooy taxawaayu jullit ci kanamu li nga xam ne ni mooy réseaux sociaux yi xam ngeen ne dañuy wax ni àdduna dafa nekkoon bu njëkk ne cinq continents la woon nee na ñu dem ba ci yàgg ñu ne léegi fa asbaha qaria mu mujjee nekk lan ab village di wax ne village planétaire ndax mondialisation dem sax ba ci yàgg ñuy mujjee wax ne ñu ne ndakate léegi sax du qaria waaye léegi bayt la mooy kër la ñuy dem ba ci yàgg ñu ne léegi sax kër rëy na ci waaye ñu wax nekk mu gën a ndaw ñu dem sax ba ci ak ñenn ñi sax ne nekk sax rëy na waaye nañu wax rek bureau boo xam nit ñi dañoo jàkkaarloo toog loolu nag bokk na ci évolution boobu noonu li ko mën a li ko waral wala boog li ko maye mooy moyens yi nga xam ne mooy les moyens technologiques ni ñu ni ñu ni ñu évoluer muy évolution boo xam ne bu jéggi dayo la dem ba jur li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi nga xam ni léegi nit ki maanaam mën naa am communauté yu bëree bëri yoo xam ne dafay nekkandoo ak ñoom li muy wax ay millions yu nit mën koo seddaan ci benn instant te fekk ni jugul fi mu nekk bougéwul fi nga xam ne nii fa la nekkoon lu mu def mooy dafa bës rek loxoom ci li nga xam ne nii mooy téléphone am wala boog ci li nga xam ne mooy smartphone am. loolu kon indi ay révolution yu mag yoo xam ne nii dëgg la rek tey ci liñ koy natt mooy ci wàllu social maanaam yan impact la ci am waaye tey boo ko doon jàngat ci wàllu économie di nga gis ni réseaux sociaux yi. internet bi numérique bi tey fi mu yegg tax na yu bëree bëri tey changé na yu bëree bëri soppeeku na nga ñëw tamit ci wàllu politique nga gis ni changement yi ci am yàlla rek xam nu mu nu mu nu mu toll. yooyu nag da ngay gis ni jamono bu nekk mbir boo xam ne nii ñëw na ci kanamu jullit bi am na loo xam ne nii lu positif la am na loo xam ne lu lu négatif la loo xam ne mën na ko cee jëlee. umpule wuñ ne dëgg la nit ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi am na lu bëree bëri loo xam ne nii lu positif la luy jëriñ la lu ñuy jëriñ la ci sunu wàllu diina ci sunu wàllu àdduna waaye it li mu làmboo ci ay musiba yàlla rek xam nu mu toll. kon nag ci loolu defe naa ci impact yooyu nga xam ne ni am na ko defe naa tey ci la ñuy waxtaanee ak sunu mbokk mii di Oustaz Said Ly kon mu ñëw kon ci xam naa waxtaanam dinañu jaaral ci li nga xam ne mooy taarif wax ñu réseaux sociaux yi noonu mooy lan seen i jago al alxasaïs ak dawaabit règle yi nga xam ne nii ci lañ war a tegu pour jullit mën koo utiliser ak lan ak ban bët la ko la ko charia di xoolee ak yeneen point yoo xam ne nii dana topp ci kon oustaz nu rahib bik li nga ñaan yàlla yàlla na yàlla saxal salaam yi dëgëral ko bu ñu mën ñëw ci li nga nar a wax
alhamdulilah rabil aalamiin wala udwaana illa ala zaalimiin wasalaatu wasalaam ala man ursila rahmatan lil aalamiin basiiran wa naziiran wa daa'iyan ila llahi bi iznihi wa siraajan muniiran ixwatal iimaan assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi daje ak yéen fii di fàttalante ci tomb bi nga xam ne mbokk bi wax na ko léegi te mooy lan mooy taxawaayu jullit ci jumtukaay yi nga xam ne ñooy jottalante ñooy tax nit ñi jokkoo lan moo ciy taxawaay ab jullit xam ngeen ne ni mu ko waxee léegi bi muy ubbi waxtaan wi nee na démb àdduna bi ay continent la woon yu ñu xaaj balaa ñuy jokkoo daanaka day fekk benn information bu amee Afrique balaa muy egg feneen day fekk ñooñu fàtte nañ ko mais wees na foofu tey ñu dem ba ci àgg ñu ne mbir mi benn dëkk la ñu dem ba caag ñu jële ko dëkk yóbbu ko ci kër ñu dem léegi ba jële ko ci kër yóbbu ko ci néeg jële ko ci néeg indi ko ci bureau xam ngeen ne ordinateur ñi ko njëkk a defar ci biir lañ dugg di ko defar kon nan la tolloon tey da ngay gàddu àdduna ci sa biir poos di dox ak moom nga gàddu loo xam ne ci sa biir poos wala ci sa biir saak wala ci sa loxo loo xam ne àdduna bi foo bëggee yegg yegg fa moo tax ñu ne kon léegi benn bureau bu ndaw la tey ni révolution amee ci wasaa'il yooyu jumtukaay yooyu nga xam ne day jokkale nit ñi day jokkale àdduna bi te jumtukaay yooyu ni mu gaawee ak nu mu graawee ak ni mu yéemee loolu waruñu ko bàyyi noonu muy dem rek ñii nga xam ne ñoom la ñuy wax ay jullit duñ ci am benn gis-gis duñ ci am benn xalaat lu dul ñoom dañuy toog rek di recevoir mbalit yi ak la cay juddu non ci lislaam lislaam diine àdduna la ñu bari ci jullit yi njuumte yi ñuy def dañuy jàpp ne lislaam julli kese la maanaam côté ibaada rek lay wax julli koor joxe azaka dem màkk moo tax koo ne yow mu ne la léegi-léegi laa doon julli ñu ne koo fex dara rek mu ne la xoolal man julli laa comme yow démb yaa yow sax seede nga ne maa ngi yow ñoo julleen doo gee ci jàkka ci pour ñun julli kese mooy islaam soo paree ci julli loo neex nga def fekk gis nga pourtant bu ñuy jàng ibaada baatu ibaada bi ko ibnu taymiya di firi lu mu wax ismun jaami li kulli ma yuhibbuhu allah wa yardaahu min al aqwali wal amali yooyu lan la mu ne az-zahir wal batin jaamu yàlla aw dundin la aw dundin nekkul julli kese nekkul koor kese balaa ngay nekk jullit koor ñëw balaa ngay nekk jullit jumaa ñëw vendredi à part vendredi yow sa yoon nekku ci da ngay rajaxe nekk ci li la neex ba jour vendredi nga dem sangu sol koppati sol yére bu weex gàddu sijaada gàddu kurus boo ñëwee simmeeku teg ko fële lem ko ba mu jekk sotti ci parfum siire dàll yi non loolu du diine islam aw dundin la mbokk yi manhajul haya système de vie la ni nuy dundee la moo tax bàyyiwul dara lépp daf cee wax amul lu mag amul lu ndaw kon xam ngeen ne lislaam boobu tey jii ni jumtukaay jokkookaay yi baree mooy sabakatu tawaasul al ijtimaaya ni mu baree tey xam ngeen ne foog lislaam daf ci wax xam ngeen ne foog diine am ci ay dawaabit ci nu mu koy yeewee ana naka lañ ko war a utiliser ndax ñun dañuy toog rek comme tey ni jumtukaay yooyu baree nga xam ne ay façon façon la am ay jubluwaay am ay yoon ci yiñ koy jëfandikoo mu yaatu lool ci individu yi ak société yi ndax jullit ñoom dañoo war a toog rek ci yooyu yëpp pata pataaral wala ñu nekk ñoo xamante ne ñoom mbon gi rek la ñu ci gis comme tey nu mu amee li ñu jàpp nañ ne tey portable ku ko yor sa buntu mbon ubbeeku na non ni ñu jàpp ne réseau yi tey ñun ñëpp xam ngeen ne la ca nekk cag mbon kenn xamul nu mu toll paaka ñaari boor la pourtant am na lu baax pourtant am na lu bon léegi nag ñun lan moo tax ñun lu bon li rek moo ñu ci intéressé loolu moo war a nekk question bi lan moo tax mbaax a ngi nii mais mbaax gi intéressé wuñu mbon gi rek moo ñu intéressé lu tax parce que diine moo nu tënkul diine bu la tënkee nga gëm yàlla gëm yonent lépp lu ñu indi ci yow lu bon da nga koy defaal lu baax moo tax jàngeen xadis bi yonent bi ne man raa minkum munkaran lu mu wax fal yugayyirhu bi yadihi na nga ko changer ak sa loxo parce que gis nga ko parce que yow waroo nekk rek kuy def lu bon waroo waroo ko def mais bal yow soo ko gisee sax da nga ci war a am taxawaay dañuy dox ci tali bi benn mbokk bu ma àndal mu gis benn clé na dafa wadd mu for ko mu ne ma oustaz lii de clé la ma ne ko léegi nag mu ne waa kan mooy borom ma ne ko ah man de xaw ma borom xanaa nga denc ko boo gisee borom nga jox ko ñu am trois jours mu ne ma clé bi de xool naa ko musique kese moo ci nekk ma ne ko tuubloo ko tuublool clé bi tuubloo ko na la ñuy tuubloo clé du ngeen ma tontu ah lu ci nekk musique soo ko bëggee tuubloo loo ci def jeex na suñ portable yi dañ ko war a tuubloo suñu ordinateur yi dañ ko war a tuubloo waaye balaa kele bi di tuub borom kele bi moo war a tuub ba pare wala fi nee nañ bala nga ne naam ne fa bala ngay laax jaay laax lekk léeg-léeg nga gis ku yor kaamil teg ko ci kanamu oto bi ah non kaamil bi du pour oto bi léegi nga gis ko yor kaamil teg ko ci kaw bibliothèque kaamil du pour bibliothèque léegi nga gis ko yor kaamil teg ko ci buntu këram ah non non am naa kaamil sama kër pour loolu kaamil gi kaamil bi day aar kër gi kaamil bi day aar oto bi waaye est-ce que kaamil bi looloo tax mu jóg ah kaamil bi pour yow la waaye du pour kër gi pour yow la mais du pour oto bi kaamil bu yor oto bu yenu kaamil ban njëriñ la ci am masalul ladina hummilu tawrat summa lam yahmiluha ka masalil ximaar soo fekkee mbaam nga sëf koy téere ba mbaam mi ne guj mbaam mi amul lu muy jëriñu téere yi bal téere yi pour borom mbaam mi la alquran du pour ku dee alquran pour ku dund la su njàngee surtout yaasin yàlla dina wax ne li tunzira man kaana hayyan nañ ko jàngal waa ji balaa muy dee kon mbokk jullit yi réseau yi nga xam ne tey tanawaat ay façon yu bari la fi askaaliha ci seeni jëmm wa ahdaafiha ak seeni jubluwaay wa taraiq istixdaamiha ak yoon yi nga xam ne moom la ñuy jaar pour utiliser ko kenn xamul nu mu toll façon yi kenn xamu ko kenn mënu ko tàkk bis bu nekk ña koy liggéey ñu ngi liggéey yu bees la ñuy indi jumtukaay boo gis tey gi fi ak ñetti fan boo toogee indi nañ bu ko gën a ëpp capacité bu ko gën a garaaw ci melokaan yi tamit kazalik ci jubluwaay yi aussi gis nga ñun li tax ñu doy waar mooy dañoo toog rek xamuñu ñiy defar ñoom la ñuy defar lan moo ci seen jubluwaay mag du fecc yàlla naa dee loo gis tey yahudi ak nasaraan yi defar ko am na jubluwaay lu tax ñu defar ko am na fuñ ko orienté am na nuñ koy orienté noonu la ñu bëggee nit ñi jaar noonu mbokk yi ci yoon yooyu nga xam ne jumtukaay yu bari la te wuute nga xam ne dañoo ubbi bunt yi partout ñépp ko mën a utiliser dama am benn xale doom boo xamante ne deux ans et demi la am day jàpp sama tablette yi taf taf taf dugg YouTube commencé indi mi koy jàng alxuraan commencé indi ay woy islamique te may tëdd ba caak rek ma dégg alxuraan wala ma dégg benn son su ma nee nii ma gis ko moom la saa yu ma ko tëjee utal ko kot daf may jaaxal daf koy ubbi affaire daf may yéem ma ne waaw ñii bu ñu màggee musiba am benn séeréer vélo daf ko romb vélo xam ngeen vélo waa ji yëkki di pétale fiw fiw fiw mu ne kii de bu màggee musiba am waaw gis nga moom foofu la toll waaw vélo la gis rek mu ne bu vélo bu vélo bi màggee musiba am kii mun na daw de kii de bu màggee musiba am kon ñun tey wala suñu doom yu ndaw yi nga xam ne li ñuy utiliser kon ñoom bu ñu demee ba toll ni nun ñii ban monde la ñuy dund fii kon xam ngeen ne ñun tey jii ba ñuy nekk xale yooyu ne xamuñu li yi xewul woon moo tax niñ ko defaree mooy ñëpp ko mën a utiliser mag ak ndaw góor ak jigéen ku jàng ak ku jàngul ñëpp parce que dafa war a yomb pour jokkoo bi gaaw dafa war a yomb pour li ñuy tas gaaw dafa war a yomb pour ñun li ñu bëgg mu gaaw am ak façon bu mun a amee kon mbokk jullit yi ci étude yi nga xam ne moo mujjee am yi nga xam ne dafay wone jumtukaay yu jokkoo yooyu ni mu tasaaroo ci yu ndaw yeeg yu mag yi ci société yi surtout société islamique yi rawatina nag dëkk yi nga xam ne ay jullit lañ ñoo fa ëpp jumtukaay yooyu dañ ko faa yombal gaaw ko faa tasaare boole kook nag ay mbon yoo xamante ne kenn xamul nu mu toll pour lan pour mën a gàllankoor jullit yi pour mën leen a baare ba li yàllaa ko yonent bëgg ci ñoom ba seen téere bii di alquran fi mu leen bëgg a jaaree lañ jaar fa duñ fa jaar su ñëwee ci xasaais sabaka atawaasul jagleel yi nga xam ne am na ko danañ gis ne yi ci njëkk tomb bu njëkk mooy mutaaddida wa mutanawia dafa bëri waaye dafa wuute mën ngeen ko lim facebook a ngi fi ah whatsapp mi ngi fi imo mu ngi fi lépp ngi fi benn benn mën nga kaa lim benn bu ci nekk kenn ku nekk ci ñun mooy xool moom bi ko ci intéressé mu daal di jël man bii bii laa bëgg fii laay jokkoo man ñenn ñu nekk dañ lay indil pour nga tànn façon bi ngay tànn yow dañoo fexe ba convaincre la mu yomb ci yow lool mu neex la nga xam ne gis nga fi yu bëri mais dañoo fexe yow ba nga bëgg boobu ñu fexe man ba ma bëgg benn ñu fexe kee ba mu bëgg benn kon fu muy mujj mooy yooyu yëpp ci société bi ni mu mel ak âge yi ni ñu wuutee ak capacité xam-xam yi ni ñu wuutee fexe nañ ba kenn ku nekk ñu utal la bi nga tollool ak bi nga bëgg mais ci benn bool lay sotti tiwo ay tiwo la rek tiwo la ñu gas yi jaarale ko nii yi ñu gas jag jubal ko nii yi ñu gas jubal ko nii waaye yooyu yëpp bu robinet bi ubbee ci benn bërigo lay sotti loolu ñu bëri ci ñun xamuñu ko kon yooyu mbokk yi ñaareel bi mooy ixtiyaariya kullu insaan ala xasbi iradatihi fi tawasulihi ma al axirin kenn ku nekk ci ñun tey boo xoolee am na ci ñun ñoo xam ne facebook moo leen tere nelaw guddeeg bëccëg ñu ngi ci ñi whatsapp ñi imo ñi Twitter ñi ñi ku nekk kenn ku nekk ñun dañoo fexe ba nga tànn benn def ko sa jumtukaay bi nga xam ne moom ngay jokkoo ak ñeneen ba mooy ñaar ñetteel mooy assura suratu tawaasul ñu fexe ba mu gaaw yomb ci yow soo ubbee rek egg na xoolal tey booy envoyé benn image wala ngay envoyé benn son boo bësee nga bàyyi rek egg na fi mu jëm dañoo fexe ba mu gaaw ba nga xam ne yow dootoo ko mën a téye su rëccee rek dem na moo tax yenn saa yi nga gis ku doon envoyé kenn benn waay ndeysaan daf ma woo semaine bi fa am ak soxnaam problème luy problème bi mu ne soxna si damaa def ci portable am loo xam ne parce que wóoluwuma ko damaa def ci portable am loo xam ne bis buy envoyé kenn message message bi ci man lay njëkk a ñëw balaa muy dem fenn xam nga lan moo dal soxna si mu tëdd guddi futtee ko yaramu neen jëkkëram dafa tukki muy envoyé faram ay photo yaramam mu envoyé ko jëkkër ji gis nga jëkkër ji jot jot yëpp parti yaram yi la doon photo parti yaram yi xoolal sama fii léegi ni mu xeesee xoola sama fii nu mu duufee xoola sama lii xoola sama laa envoyé ko waa ji yëf yi ñëw ci jëkkër ji xoola loolu nu mu grave ci ab jigéenub jullit subhanallah foofu la tey lan tool moo tax man la affaire yi dafa gaaw sura suratu tawaasul wa tanaqulul axbaar noonu mu gaawee ci jokkale la noonu la gaawee ci tas xabaar xoolal tey dañuy xëy léegi léegi ci saal bi waxtaan biñ fi def bu ñu xëy suba mu tas ci université bi yëpp te ki ko def ci biir néegam la toog day sans numéro moo nekk ci portable am day ñëw léegi sans numéro yëpp mu envoyé leen te fi mu toog la toog gis nga ni mu gaawee xabaar bi tasaaroo bu dee lu bon la gis nga ni muy gaawee waaye noonu mu gaawee ci tasaare xabaar noonu la gaawee ci photo yi yi ñu koy defee noonu la gaawee ci xalaat yi ñu ciy génne di ko enregistré moo xam dañ koy wax moo xam dañ koy bind noonu la gaawee tey te xabaar yi li ci doy waar mooy ñun lu ñu jot rek dañ naan dëgg la xoola fan yi gis naa benn nit ku dee ku ñu defal kaala bu weex def ay witteen ci bakkan yi ñu ne kii ci imaam yi màkka yi la nekkoon dafa dee ñu suul ko ci wetu kaaba gi ñuy defaraat foofu ñu sulli ko am na ñaar téeméeri at ñu fekk changé wul nga gis gaa yëpp est-ce que macha allah est-ce que est-ce que man gis naa ku jooy allah allah akbar xoolal kii ma ne xoolal ñii ni ñu leen tardé te xamuñu ndeysaan yu bëri yahud yi même da nga koy gis sax yenn saa yi ñu dessiné ñu ne kii da doon ya da doon saw ci alxuraan léegi yàlla daal di soppi awra bi awra bi daal di nga gis ñu indil la benn awra boo xamante ne fees na saal bi ñu ne yàlla moo newil awra bi ñu ne kële dafa dëgg ci kaamil ñu indi la benn tànk boo xam ne fees na saal bi léegi yow yahud yoo koy def su ko defee julli ñi xëy rek allahu akbar yaay xoolal kii dafa dëgg kaamil gis nga tànk bi papa xoolal kii maire bi moom xam nga xamul nu mu demee day toog di jooy kii ya bon kii rek dara amu ci ndeysaan ñoom ñi ngay liggéey seen liggéey ñun ñu toog di commentaire ay photo wala ñu dugal ko ci Facebook bi nga gis commentaire yi wala gars yi dem jàngi seen leçon yi ci commentaire bi la ñuy yendu ndeysaan gars yi toog di ree rek benn waay mu ne yahud yi dañuy xam dara dafa araam par exemple sàngara dafa araam wala nangam bi dafa araam loolu araam ñu ñëw jël ko jaxase ko def ko dara indil la ko par exemple dañuy jël ànd jigéen jigéen bu amee doom ànd boobu doon ëmb doom ji xam nga day génn ci biti ñu jël ko dem def ko mileen mileen nga jël ko nag ndeysaan jàpp ba pare diw imaam maa ngi ñëw dañuy julli nga jàpp diw ba rafet nag ndeysaan ñoom ñu ne xola waa ji sobe lay diwoo sobe est ce xam ngeen ne ñun loolu la ñuy def fii yu araam yooyu la ñuy jël defar ñu ko ndeysaan ba mu naes ñu tegal ñu boo añee ba pare nga naan ci ba doyal boo sangoo diw ba rafet xeeñu ba neex daal di génn jël sawi mbaam ko dafa la ko parfum nga jàpp ba pare sang ba rafet day diw puccut puccut puccut fekk ay sawi mbaam xoox nga nga diwoo su ko defee gaa yi ree rek ñoom ñuy ree rek xoolal gaa yi xamuñu sax lii lan la c'est que loolu mooy suñu problème mbokk yi ñeenteel mooy suhula istixdaam yombal gi nga xam ne yombal nañ ko ba ñëpp mën koo jëfandikoo tout le monde te façon bu nekk mën nga ka mën nga cee jaar façon bu nekk mën nga cee jaar pour jëfandikoo ko lii ñenn ñi seen ordinateur la ñuy jël ñenn ñi ay tableau ñenn ñi ay photo ñenn ñi portable bi ci boppam la ñuy utiliser kon loolu tamit ci xasaa isi la bokk bokk na ci xasaa isi suhlatu tawasul wa tafaul fa hiya la taxtaaju maharat aaliya li taaruf ala tatbiqatiha soxlawul ngay am capacité xam-xam dañ la ko defal ba mu yomb soxlawul ngay am ay nangam ak nangam ngay wëri nangam ak nangam wala ngay uti déedéet léegi léegi lañ lay jox portable bi rek yow yaay dem télécharger sa bopp logiciel yi anawaa commencé jàng tubaab jàngoo anglais jàngoo arab jàngoo dara mënoo sax xamoo sax nu ñuy bindee mais gis nga yombalal nañ la ba nga mën a tasaare ñoom seeni bëgg-bëgg ndax yomb gum yomb juróom-benneel mooy atafailiya fexe fal mustaxdam laha rasail wa mustaqbal wa qaari wa kaatib wa musaarik dañoo fexe ba ñi koy jëfandikoo ñenn ñi ay lettre la ñuy bind ñenn ñi ñoom duñu bind duñu envoyé waaye dañuy toog di lire rek di encaisser ñenn ñi ay téere lañ ciy bind ñenn ñi ñoom commentaire euh, euh, lu ñu indi ñu commenté ko ñoom co- ay ñoom commenté rek journée bi yëpp ñoom ñooy commentateur waaw ñenn ñi ñoom dañ leen ubbil ay bunt yéen ay saagakat yi ku wax lu leen neexul saaga leen ko waaw nga dégg sax waa ji da doon wax ne connecté wu leen connecté wu leen TV doomaraam ubbi na ana gars yi ana sama gars yi tey ñu xorom Sénégalais yi kenn liggéeyatul ñëpp toog di déglul ay saaga li waa ji doon wax mu ne bopp Sénégalais yi suuf su nangu la loo ci ji mu sax Sénégalais yi seen bopp yi suuf si dafa nangu loo ci ji mu sax boo indi woon xeer jullikaay sax ubbi bopp Sénégalais ne ko gis nga lii wallahi alazim mbokk boo ko dagee sa njaganaay lii boo yeewoo boo jàngee nangam ak nangam wallahi di nga fekk mu nekk or nga dégg mu ne la indi indi indi indi benn docteur daf ma woo ni saalam fi muy xoolee maladie ma ñëw mu indil ma benn kayit boo xam ne kayit bi moo ëpp drap bi yaatuwaay ak guddaay benn kayit la de moo ëpp lii kayit bi yëpp dañ koo bind Quran ba mu fees dal mais bind bi ma yéem niñ ko bindee mooy fatiha lañ ci def def ci qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas qul huwa allah mais la hawla wala quwwata illa billah technique bi ko waa ci bindee lépp a tolloo qul huwa allahu yi qul a'udhu bi rabbin nas bi mu koy bind fatiha bi mu paree qul a'udhu bi rabbin nas bi mu koy bind dafa fexe ba baat yi di tolloo su ñëwee ci xul bi bu saar bi jeexee maanaam nombre yi mu ko bëgg su ñëwaatee deuxième ra rang bi ñaari xul yi ñooy tolloo gis nga kayit bi ba mu jeex lépp a tolloo kayit gi nee naa leen moo ëpp lii ba léegi maa ngi ko denc dugal naa ko sax ci internet bi xam nga docteur boobu lañ lañ ko wax booy tëdd maanaam yow boo bëggee nekk ku jóge fii ku jiite nangam kayit bi da nga koy lal tëdd ci xam nga kayit bi boo ci boo ko la tëdd ci après genn waale gi nga sàngoo ko docteur bi jël kayit bi lal ko ci lalam tiit mu ni lii alxuraan ma ciy tëdd mu lam ko ba mu jekk deñ yow suba paa bi ko jox woo ko ne ko ci nga fanaan mu ne ko waaw fekk tëdd ci mu woolu ma ma ñëw mu mu mu taalal ko ci bureau bi affaire bi fees del bureau bi ma ne ko mais lii foo ko jëlee lii lan la mu ne ma benn paa daal moo fi ñëw jox ma ko ne naa ci tëdd ma ne ko tëdd nga ci mu ne ma oustaz dinaa tëdd ci alxuraan gis nga kooku utiliser na xelam alxuraan dafa ñëw pour ñu tëdd ci wuy leen ma daa ñëw pour ñu tëdd ci allahu akbar léegi ñun lan la ñu alxuraan bi di jëriñ mooy takk ci su takk ay ndombo takk ay takk koo fi wax mu ne la laal ma waaw ñenn ñi de man damaa belendewu waaw damaa belende na këj dañuy takk takk takk takk bu di këj ñëw ndeysaan ñu fàtte loo takk bisa ngi ñëw dinañ ko tekki waaw loo takk bisa ngi ñëw danañ tekki lépp lépp loo sol bisa ngi ñëw dinañ ko summi dara duñ la desal lépp lu ñuy dindi kon li nga takkoon ban njëriñ la am li nga doon naan ban njëriñ la am li nga doon diw ban njëriñ la am foog ñu nangu xam suñu diine bañ a nekk ay altoppe bañ a nekk ay làmbatukat lépp lu ñuy def dañ ko war a def ci ay yaqiin muy lu wér ci xam-xam bu leer lii nu nekk ni nekk ay altoppe lu ko waral rek mooy ñàkk xam-xam moo tax lu ñëw ñu daal di jël juróom-ñaareel mbokk yi taaddud istimaalaat jëfandikoo yooyu façon jëfandikoo yi ni mu bëree fa min annas man yastaxdimuha lil axbaar am na ñoo xam ne tas xabaar rek lañ koy doyee ñoom xabaar kese feni kese am na ñoo xam ne lan lañ koy def pour fexe ba nit ñi boog seen mustawa jóg nañ leen di daaneel rek bu kenn jóg ñeneen ñi luñ koy dee pour gëstu ñeneen ñi luñ koy dee pour njaay wax na ko sànq ñeneen ñi luñ koy dee pour jokkoo ñeneen ñi lan lañ koy dee pour mbon waaw tas njaaloo ñoo am na ñoo xam ne loolu dong dong dong dong dong lañ koy doyee te boobu moo ci gën a dangereux benn waaye dafa ubbi benn site boo xamante ne site porno la moo bisit bi xarit benn xarit am tere ko ne ko bàyyi li ngay def nii chaque jour yaa ngi ci internet bi ya yaramu neen yàqale yi jigéen yi porno guddi porno bëccëg yow jullit nga li ngay def nii di nga ci am bis de waa ji wax ba sonn mënatu ko mënu ci dara waa ji bàyyi ko waa ji nekk ci ay at xëy rek dee bi mu dee xam nga lan mooy problème site bi mu ubbi woon xaritam yi naka la ñuy def ba xam code bi ba xam code secret bi pour ubbi site bi pour effacer photo yi mënatuñ ko déjà dee na site baa ngi continuer mën na léegi juróomi at site baa ngi continuer ak site porno moom ma nga fa ak ay mbon yu mu doon def ak xale jigéen yeeg yu bon yi mu doon def kenn mun ko dindi imagineel ba kañ te jàngeen man sanna fil islami sunnatan xasana falahu jàngeen man sanna encore sunna sayyi'a xoolal lu bon loolu tey ku ubbi site bi waa ji ñaata bakkaar la war a am ñii seetaan ñaata moom lan la ci war a am ba kañ kooku foofu muy nekk yërmande yàlla du ko fa fekk mukk ci àdduna fekkoon ne dafa tabax jàkka tey jàkka ji moom faatu na ah mais tiyaabaam day yokk tiyaaba yi mën naa dem sax ba ëpp ay ay ay bàkkaaram ndax chaque jour liy julli ci jàkka ji ay kaamil alxuraan la maye woon benn teen la gasoon benn nangam lu baax imagineel kooku tiyaaba yi koy fekki mais bu dee lu bon loolu tax def lu bon garaaw yow da nga jël tey benn photo da ngaa jël benn image da ngaa jël benn son lu muy lu bon nga envoyé ko ay nit ñooñu envoyé ko ñeneen ñooñu envoyé ko ñeneen yow ñaata bàkkaar nga am moo tax waa ji di wax ne seen portable yi balaa ngeen di envoyé dara même sax bu dee dañ cee bind diine yenn saa nga gis ku wax démb effacé na ay salaatu ala nabi yu ñu ma envoyé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nga salaatu ala nabi man ku ma ma ne ko karaj effacé boo ko envoyé juróom-ñaari nit du ma ko envoyé kenn parce que lu wérul boo ko envoyé yow la loo xam ne wérul ci islam nga envoyé ko mais nit ñi dem di ko def ñu bàyyi li ñu waroon def ñu dem def loo xam ne waruñu ko def yow la moo tax lépp balaa ngay envoyé xoolal li ma war a envoyé lan la jaru nga koy won kenn man yu bare bari dañ ma koy yónni ma ta ma dindi ko du ma ko won kenn parce que xam naa ne li du dëgg nit ñi dañoo war a ñor dañu war a yeewu ci mbir yooyu beneen bi mooy huitième ci iqtisadiya ci wàllu économique xam nga ne tey nit day toog États-Unis léegi di jaay fi produit am Sénégal nit day toog Sénégal léegi di jaay produit France gis nga du mu gaawee nga gis léegi léegi semaine bi passé sama soxna dafa jënd benn moto moto kii pétale yooyu ñuy entraînement yooyu vélo entraînement yooyu mais génnul fi mu toog adresse bi la gis woote moto bi kii bi laa soxla vélo bi laa soxla ñu ne ko foo nekk mu ne place sangam laa nekk ñu ne ko temps lay jar mu ne gis naa ko indil leen ma ko fii ñu toog même pas ay waxtu benn borom scooter indi ko ñu fay ko mu dem yoonam voilà xoolal bougé wuñ kon yooyu ay jagleel la yoo xam ne tey moo ngi ci biir mbir yi suñ ñëwee ci abraz mazahir assulukiya yi gën a feeñ ci suñuy comportement li gën a bëri ci comportement ñi nga xam ne ak seen i jikko ak seen i melokaan ñi nga xam ne ñooy utiliser réseau yooyu li ëpp ci nga xam ne yooyu ay mazahir la yu muy génnee li ci ëpp mooy alkazb feni kese fen rek surtout la ñuy wax ci diine dangay gis benn waay rek ci saalam reer ba suur rek ah lekk ndambeem ba biiram ne guj naan kafeem rek commencé toog waaw di wax loo xamante ne sa waay dara du ci dëgg lépp ay fen la waaw diw moom moom àjjana caabi àjjana diw la ko yàlla jox keroog ba mu koy jox man fekke naa ko jibril la ko indi fëgg néeg bi feeni kese dara du ci dëgg fan nga gisee jibril Sénégal moom yenn yi ku yóbbu di ko fi moytu ne ko am na ñoo xam boo fi moytul léegi ndax Sénégal am na ku mës a gis yàlla léegi nga gis ku ne waaw waaw aha kay diw gis nga ko boo ko nee fan la léegi mu ne la place de l'indépendance ndax ñeme yàlla bu ñu ñeme yàlla feni kese alkaz beneen bi mooy kasratul axbaar alkaadiba wal ishaa'aat almaghduuda wa intishaariha bi sura ajiba fen yooyu bëri gi nga xam ne bëri na ak tas googu ñu ko tas ak mbon googu gaaw gu mu gaaw waaw benn waay dafa doon wax doomam jabaram mooy tandikul fen dafa gaaw mais pour mu nattu jabar yi dafa xëy rek jox ko benn nen ne ko gis nga nen bii démb laa ko nen ma dem ci douche bi rek nen ko jabar ji na ko ah mu ne ko man kay damaa jaaxle waaye day bi ma ko wanee benn sëriñ dafa ne ma na nga moytu mu toj parce que bu tojee da ngay dee comme nag wóoluwuma sama bopp yow yaay sama soxna ma ma bëgg nga dencal ma ko fu mu foo xam ne kenn du ko laal balaa muy toj ndax buy toj may dee jabar yi jël nen bi denc ko ba pare daa deboo xaritam ne ko man de sama jëkkër daa nen xarit bi génn daan ne diw de jëkkëram daa nen ñaari nen kooku génn dem ne diw de jëkkëram daa nen ñetti nen gis nga balaa ngoon nen bi mën na san waa ji ci boppam dafa tiit bay laal ginnaawam dafa ne ndax du dafa nen moom mi ko doon def de affaire da koo jaaxal ba muy laal ginnaawam dafa ne man affaire bi mbaa du dëgg la ah ndax fen gu ndax tasaaroo bu affaire bi tasaaroo ay fen jël dañuy jël fen di ko fen ba mu nekk dëgg loolu moo am Sénégal nag fen la ñuy jël di ko tóoj di ko tóoj di ko tóoj ba mu laal asamaan loolu fan fuñ jëm beneen bi mooy infilaat zimaamul waqt mbokk yi réseau yi tey ñuy utiliser ñaata ci ñun ñoo ciy toog di ci jeexal seen waxtu di nga gis koo xam ne bu yee du nelaw ci lay fanaan ci la ñuy fanaan ci lay fanaan ci lay fanaan ba dégg asalaatu xayru mina nawmi mu fay portable bi tëdd tuuti commencé waat yeewu non subhanallah am ñoo xam ne defatuñu dara ñaata waxtu la ñuy ñàkk tey ci réseau yi ñaata ci ay mag ak ndaw góor ak jigéen da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne même même même ba ci ibaadu yi sunnit yi da ngay gis ñaar ñu nobante tëdd ligne ana waa ah boy nag kii bi nag ana waa terminé di jokkoo di jokkoo ba kañ yéen ngeen ne ngeen di dund diine ngeen di jokkoo ba kañ yow ngay dund diine kee di dund diine nga naan ko waaw loo sol nu mu mel foo tëdde waaye dóoral vidéo bi waaye gis nga seytaane ni mu leen di tafoo gis nga seytaan ni mu lay tafoo doo xam seytaane di la yóbbu di la yóbbu di la yóbbu ba yéen ñaar ëllëg ak si biir mën ngeen a wet def musiba te ci lii moo ko ubbi te xam ngeen ne yonente ba muy tere njaaloo lan la wax waa ji lan la wax fa nazaratun fa btisaama fa kalaamun fa salaamun fa kalaamun fa mawid fa liqa nee na fa nazaratun njaalookat bu góor su xoolee ku jigéen rek bëgg a njaaloo ak moom da koy xool fa nazaratun su ko xoolee lu muy njëkk a def mooy day muuñ nga gis mu ne nii bëñ yi gars yi ne ko lan la mu ne non xale bi romb mu ne ah salaamaaleykum ah boy nga fa kalaamun après waaye jox ma sëkkul quoi jox ma numéro bi jox ma affaire yi quoi jox la nga enregistré nga dem ba yegg commencé woote boo wootee ñu wuyu la su la ndaw si wuyoo lu ngeen def waaw booy man dama la bëggoon seet si est-ce que seen kër amul xaj kan mooy xaj bi wax leen ma kuy xaj bi wala imaginer ki ne sa papa xaj la loolu saaga la wala tagg la est-ce que seen kër amul xaj ñu wax ko doomu jullit fuñ jëm fuñ jëm fuñ jëm borom kër ñu tuddee ko xaj nga dégg moom it mu ñàkk faay dana yéen kër gi amul xaj ku ne sa papa xaj la kii dina la respecté mu ngoog mais duñ bàyyi xel parce que suñu xel yi dafa nëx ba ci langage yi ba ci lépp waxtu yooyu mbokk yi ñuy ñàkk tey di perte ci Facebook ci inter ci lu nekk ci whatsapp ci yooyu ñuy ñàkk waxtu yooyu nga xam ne tey ñi koy jëfandikoo mënuñu takk benn heure man de wax dëgg yàlla cinq minutes ndeysaan am na benn waay ci Facebook bi ku baax la day wane Facebook ah mu wane jàkka ji mu wane banque bi mu wane ndeysaan day wane banque bi nit ñi raw mu wane jàkka ji ñaari nit ñoo fa nekk mu wane Facebook gars yi di buuxante mu wane alxuraan kenn ubbiwul kaamil bi loolu loolu tey tey ñun ñu toog ci saal bi ñu néew ci ñun ñooy xëy duñ xool Facebook wala ñu néew ñu ëpp ci ñun bu ñu xëy ñu ngi ci Facebook bi waaye ñu néew ci ñun ñooy xëy ubbi alxuraan am ñoo xam ne duñ laal alxuraan hi boy boy téere bi dama ko xaw a ragal quoi parce que c'est elle est sacré quoi c'est sacré non non boy boy boy boy ah dafa sacré ba doo ko laal yow ngay julit julit du laal alxuraan yow foo jëm xanaa ngaa bëgg a dugg safara ah léegi nag dara dasa ludul suñ la ne ay examen ñëw na ay nangam ak nangam wala da ngay ut liggéey waaye fasaale ma de yéene ma nga commencé yor alx dama am benn xale bu ma dëkkal mosuma ko gis jàkk man benn fajar mu ñëw rek gis booy bi ah mu ñëw eh ustaz ma ne ah macha allah yaa ngi góorgóorlu ah kay taay kay deuxième jour ma gisaat ko troisième jour gisuma ko quatrième jour gisuma ko ma laaj yaay mu ne ma dem na Italie ndekkee yow dana nax yàlla pour julli ñaari yoon fajar ndax mu mën a yàlla gis nga balaa ngay jëm jàkk ñu digle liggéey balaa ngay jëm jàkk ñu examen yi jot nga tiit non xaaral temps yi damay sellal temps yi damay sellal ba examen yi passé wala temps yi damay sellal ba koor gi passé non tey la ajjuma asalaamaaleykum tey la ajjuma waaw salaamaaleykum bu ajjuma bi passé amatul asalaamaaleykum loolu loolu lan la buñ nax suñu bopp mbokk yi beneen ba ca tegu mooy zuhuru namt xayru mantiqi fi tafkir ak phénomène yi nga xam ne ñooy feeñ nga xam ne kenn mënu ko wax tey ci ay xalaat yoo xam ne xalaatu ñeneen la ñuy ñun jël xalaatu keneen kenn mooy toog ñenn ñooy toog indi seen xalaat defar ba mu rafet envoyé ñu ñun ñu nekk ci ah wala tey même ci rajo yi da ngay jékki-jékki ñu ne ñu indi ay ñaari mbir yoo xam ne dafa ne këf daje léegi kenn mënu cee tontu bu leer jékki-jékki rek ñu ne nee na ginaar ku mag. acca woote leen woote leen ku gaañ am cinquante mille nee na ginaar ku mag nga dégg waa ji woote non ginaar a mag ah ginaar fu mu jógee nga ne pat. keneen woote ah nee na jóg nee na mag ñu ne neen fu mu jóge gis nga léegi xoolal ñu nekk ci débat bi 10 heures ba minuit ginaar rek neen ko mag xoolal waxtu yi ñu yàq xoolal loolu ñu wax amul benn njëriñ wala ñu ne non benn waaye ngi nii dafa dugg gaal yaayam ak jabaram ñoo ci nekk ñu dem ba ci digg géej gaal gi ne rëng rëng rëng ñu ne foog mu sànni kenn kan ngay sànni nga dégg benn dof ne man sama yaay laay sànni nga dégg kenn non non non man sama jabar laay sànni ah c'est sa doomu jàmbur yow kii ya bon ah gis nga xoolal ñu nekk ci yu amul njëriñ amul bopp amul genn loolu ay débat la ngeen koy gis fii ñu koy wax gars yi ubbi rajo yi di yuuxu di woote di woote di woote fekk xamuñu ne ndeysaan waa Sonatel ñoom ngay liggéeyal rajo bi rajo bi dañu am benn code code part ci affaire yi ñaata nit a woote ñooñu ñaata minute lañ def loolu ñaata crédit la rajo bi lan la ci am waa Sonatel luñ ci am xoolal dof yi ñoom ndeysaan nga xam ne ñoom tey jii ñoom ñëpp fi lañ taxaw ku nekk booy amoo desaloo foofu benn beñe ñu añuñ ndékkuñ seen dara doyul yàq nañ li ñu yoroon ci crédit dem na mais foog yeewu foog ñu xam ne ñun dañ koy def léegi benn oto indi benn Mercedes léegi teg ñu ne oto bi ñaari mbër yi bëre gis ngeen ko fi ñaari mbër yi bëre ku ëpp message yoo lancé yéen a koy gagné oto bi ñaata lay jar 4 millions ñaata message la ñu yónnee day dem ba nekk 1 milliard xoola oto bu doon jar 4 millions mujj dikkal ñi ko doon jaay milliard ñooñu ñaata oto la ñu am ñaata bénéfice la ñu am nga gis dof boo xam ne non man du ma yónnee benn message dama yónnee 100 message ndax Modou Lo gagné oto bi dama yónnee 200 message dof bi amoo loo lekk amoo loo naan nga yónnee ay message Modou Lo sax xamoo ko bu gañee moom bu gañee moom bu daanee yow xamu la du ñëw sax sa kër ne la booy jërëjëf faay envoyé nga 10 message ah xamu la mais waxuma sax loolu ci match yi ñuy seetaan match yi match yi xoolal tey Sénégal ni ñuy sonnee ci Barça ni ñuy sonnee ci Messi Ronaldo nanga lan ñeneen ñi ah ay Neymar rek ay. kan la fi ma kan la fi Messi xam maamam ci yéen yëkkati na yëkkati loxoom saal bi ku fi Messi xam maamam na yëkkati loxoom Neymar nag du ngeen ma wuyu kan la fi Messi xam maamam papaam moom ci boppam voilà nga nekk fii xoolal benn booy Arabie Saoudite dañu gagné équipe benn équipe am papaam faral équipe mu faral équipe équipe papaam gagnant papaam di ree booy bi dafa dugg ci biir néeg bi génne kalachnikov su ko paa bi gaawul woon gis wallahi daf ko koy dóor mu dee ñu rik paa bi daw jàpp ci rek wàcc affaire bi ci suuf rek booy bi lancé ratatatatat affaire yi ci ci dër bi mu leer na ne kii da doon rey papam xoolal ci match de football ñoo xam ne yow c'est- non c'est pas possible ñun dañu dañu dorogé yenn saa yi ma romb ci mbedd yi sedd bi ni méttee match am nga gis gaa yi taxaw ma ne xoolal xoolal robot yi ñii xoolal ñii mbokk yi fan lañ jëm est-ce que ñun ñu ngi xool est-ce que ñun ñoo ngi utiliser suñu xel ah lamb football xoolal tey lii fan ba kañ ñun ñu nekk rek ndeysaan toog ñoo xam ne ñun seetaankat rek ak ñun kenn duñu seetaan ba kañ beneen bi ci tegu mooy ihmal al alaqat al ijtimaai gis ngeen li gën a da dangereux ci réseaux sociaux yi lu muy lu muy def mooy da ngay gis muy yàq ay relation da ngay am famille famille sa soxna say doom ngeen wàcc xale yaa ngi ci seen i ordinateur ñii ngi ci télévision bi femme baa ngi fële ci ay patam yow yaa ngi fële sa tablette ah xoolal kër gi kenn du wax ñëpp kaay ree suur na kenn du wax kër gi papa jaa ngi fële ci tablette am yaay jaa ngi fële doom yaa ngi fële kër gi amuñu sax benn minute bu ñuy toog ndeysaan pour waxtaan femme bi amul sax temps pour tegal jëkkëram mu lekk wala mu naan jëkkër ji amul sax mi xam nga su yàggee nu muy mel mooy relation bi mooy commencé di wàññeeku mbëggeel gi mooy wàññeeku dañuy jékki-jékki di énervé jékki-jékki xulo yi commencé fan la ñu mujj ci ay saaga ak ay dóor ak sëy bu tas papa ji dootul am yërmande doom yi doom yi dootuñu am yërmande yaay ji yaay ji dootul faale kenn xoolal yooyu ni muy def da ngay gis benn benn famille bu ndaw papa yaay doom ñetti doom ñu toog ci saal ñoom ñëpp ku nekk ne nii kenn du wax ku wax sax ni lañ lay def xulli la bët pour nga noppi la lañuy seetaan benn film la lañuy seetaan benn théâtre kenn du wax soo soxla woon papa ji sax wala yaay ji pour di ko wax sa dara sa njàng ak sa nangam il faut nga xaar ba loolu jeex kañ lay jeex kenn xamu ko nga dem tëddee noonu li gën a graaw ci li muy def mooy day dagg relation famille day tax borom kër gi neenal neenal njabootam léegi léegi maa ngi woon maa ngi wax mbokk bi ma àndal mu ma indi ma koy woon xawaaninul bayt al muslim loi yi nga xam ne dafa war a am ci kër jullit loi këyit goo xam ne dañ koy fo dañ koy tiire taf ko ci buntu néeg gi mu nekk ay loi nga xam ne lii moo fi war a am ci kër gi 9 heures fu mu jotee benn portable waratu fi tàkk téléphone du fi tàkk ci kër gi waa kër gi ñoo ñoo moom seen bopp ba fajar jot bu ñu xëyee ñu taal mais xoolal kër goo xam ne sawaay kër gi du ñu toog du ñu waxtaan moo tax suñu bopp ñu am problème mënuñu fexe muus ak waane bu fekkee ni la ñuy dundee ba ba ñu jóg ci ay jafe-jafe non ay nit yoo xam ne du ñu waxtaan papa ji du waxtaan ak doom yi doom yi du ñu waxtaan ak seen pap yaay ji kazalik amuñu fu ñu jokkoo ku nekk yaa ngi ci say mbir loolu lay njëkk a yàq yàq diggante xarit yi yàq société bi yëpp kenn talul kenn ku nekk rek mu ngi sëgg ci ordinateur nii nii beneen bi mooy même amour bi nga xam ne moo amoon sax cofeel sa diggante sa soxna ak ñeneen lépp lay dindi ba mu set mbokk yi loolu tamit ci euh, mbir yi muy indi jafe-jafe yi nga xam ne moom lay dugal ci biir nit ñi beneen bi mooy xam-xam bi muy yàq xam-xam dootul amati léegi kenn du jàng ba ci ñun ustaas yi sax boo nee benn ustaas nangam nangam rek mu ne xaara xaara tuuti xaara ma xool Cheikh Google Cheikh Google lañ ko tuddee Cheikh Google ah waaw waaw nangam gis nga nga daal di teg kenn dootul jàngati kenn dootul mokkal dara kenn dootul sonn ci benn téere kenn dootul gëstu da ngay toog rek ustaas azaka nangam nangam nga ne xaaral xaaral ma xool Cheikh bi lu mu waxati Cheikh Google. ah baax na wax jeex na terminé boo paree fàtte nga liñ la laajoon amatul gëstu xam-xam kenn dootul jàng ah mu ngi ni jàng xam-xam loolu ñu naan xam-xam dootul am loolu tamit dafa bokk ci li nga xam ne ah te pourtant dafa waroon yombal xam-xam mu bëri sooy gëstu dara nga xam ne doo sonn nga dajale lu bëree bëree bëree bëri nga xool ban moo ci gën mais léegi da nga naan ni benn rek bu gën a yomb bu gën a yomb nga ne nga daal di jël daal di indi Euh, beneen bi mooy dafay wàññi capacité intellectuelle kenn dootul xalaat te ngay wéeru rek ci ay nit wéeru ci ay nit booy boo paree affaire bi rek envoyé ma ko booy boo paree envoyé ma ko booy su la envoyé nga envoyé ma eh booy booy bu la envoyé nga envoyé ma eh booy bu la envoyé nga envoyé ma ñëpp di envoyante ba kañ yéen ni ngeen def di kii ni mu def ba xam kii ni mu def ba trouvé lu tax duñ def noonu waaye jàppale ma waaye bàyyi bàyyi maa ngi sa ginnaaw ka eh bàyyi bul fàtte rek ba kañ ba kañ bu ñëwee ci fawaid yi njëriñ yi nga xam ne nag am na ko mooy yombal gi mu yombal nit ñi ñu jokkoo seen diggante loolu lu baax la tey jii xawma leen xamu leen ma ñu jóg ku nekk jël sa numéro morom ñu jokkoo xamante loolu lu baax ci diine la waaye ban façon jokkoo lañ jokkoo loolu lañ war a yeew di jëriñante ñaareel bi mooy ixtiyaar rawabitu taqdimiya wa taqrib bayna al masafa soren distance bi nga xamante ne tey ah jok jumtukaayu jokkoo yi daf koy jegale nga jóg fii léegi léegi léegi waroon dem ndar nga laasa benn message nangam nangam li nga bëggoon def yëpp ñu defal la ko xoolal distance distance boobu muy jegale ak buum googu muy yeew diggante nit ñi ba ñu mën a jegante loolu xam ngeen ne lu am importance la lu am njëriñ waaye am na encore tajaazubul aara ak toog di discuter ci benn sujet boo xamante ne dañ ko war a def par exemple benn classe la am na benn sujet bu ñu tagal ñu daal di toog ensemble comme table bi ñu wër ko ku nekk yor sa portable wala yor sa nangam ñu nekk ci di xool naka la ñuy def ba trouver solution mais c'est bon mais tey jii yooyu la moo ñu intéressé wul ñun kay ñi ñenn ñi dañuy dem tëdd nelaw ñu bàyyi kenn muy gëstu di rey boppam bu paree booy loo gis démb ay ay envoyé ma ko kër terminé yow moom doo fas yéenee toog pour lijjanti dara beneen bi mooy iqaamatul xalaq mooy fexe ba nit ñi di toog di def nekk ensemble seen xel yi ñu koy ñu koy nàccal distance yu sori woon ñu koy jegeel mu nekk loo xam ne lu néew la lu yomb la ci loo xamante ne danañ ko jëfandikoo ci seeni xam-xam waaye bokk na ci loolu tamit ni muy fexe ba indi économique nga xam ne nit ñi danañ toog mën a liggéey mën a mën a yaxanal ah seen am-am loolu tamit bokk na ci njëriñ yi nga xam ne am na ko waaye mbokk yi fexe ba xam diine am xam-xam jàng gis nga tey da nga daan fekk téere boo xamante ne boo ko am boo koy am ni foog nga dem ba Mauritanie da ngay dugg léegi téléchargé ko nga am téere bi yëpp normal jënd fekku la ci paas fekku la ci dara fekku la ci. ni muy yombalalee xam-xam mais ak a neexoon nit ñi xam loolu tey jii xam ngeen ne yéen ñi nekk fii am na téere yoo xam ne am na yoo xam ne da ngeen ko daan soxla da ngeen di toog topp ci di daw ba sonn léegi da ngay dem rek ñu ne la nangam nangam nga daal di koy am. kon yooyu profité lañ ci war a def jàng bu baax a baax a baax waaye am na salbiyaat encore comme ni ma doon wax sànq kon lenn nañ ko xam lu bëree bëri mbooy mbokk yi dawaa bit yi moom laa bëgg a jeexale ndax. ñu am tuuti xalaat ci sunu diine lan la ñu sant ci yii nga xam ne moom lañ doon wax bi ci njëkk yooyu mooy ataxalli bil fadila nañu xam ne ñun waruñu nekk ci àdduna bi rek di recevoir mbalit nañu xam ne ñun ay jullit lañ li ñu war a njëkk a def mooy ñu caqoo ay ngëneel yar ak teggin ak mbaax ab jullit war na rus bëtam bii mu koy teg ci ab vidéo bu araam ab jullit war na rus bëtam bii mu koy teg ci ab photo bu araam ab jullit war na rus bëtam bii muy liir bind yoo xam ne jaaduwut loxoom bii di ko bind wala làmmiñam bii di ko génne maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib inna sama wal basar wal furaan yóbbi ay aaya la dafa am ay dawaabit fexeel ba ëllëg bu ñu dekkee ci kanamu yàlla sa bët bi du wax ne ana lil xaraami nazartu li araamoon maa ko doon xool sa nopp bi du wax ne ana lil xaraami samitu li araamoon maa ko doon dégg sa gémmiñ gi dul wax ne ana lil xaraami akaltu sa tànk yi du wax ne ana lil xaraami masayt sa sexe du wax ne ana lil xaraami faalt boo reppee ba sa yax say cër wax yi yàlla dina wax ne ana araftu wa shatart malaaka bi nekk ndeyjoor ne ana katabt malaaka bi nekk càmmoñ ne ana shahat loolu nañ fexe ba bum nu dal bët yi ne maa doon xool lu araam nopp yi ne maa ko doon dégg loxo ne maa ko doon def tànk ne maa doon dox di fa dem sexe bi ne maa ko dëggal malaaka bi nekk ndeyjoor ne maa ko bind malaaka bi nekk càmmoñ ne maa ko seede yàlla ne xamoon naa ko ma nëbbal ko waa ji laqad araftu wa satartu xamoon naa ko waaye tey fii ci àllaaxira laqad istadda gadabi ala man qalla xayauhu alayya sama mbugal dana tar ci képp koo xam ne bi nga nekkee ci àdduna danga maa ñàkke woon kersa rus nit ñi ñeme ma man yàlla yastaxfuna min annas wala yastaxfuna min allah wa huwa maahum ngeen rus nit ñi ragal ñeme yàlla loolu ne ngeen def boo wéete sa néeg rek génn sa portable dugg ci site yu bon yi dugg ci dugg ci di xool loo xam ne xam nga ne bu nit ñi toogoon doo ko xool waaye tey maa fii ci àllaaxira sama mbugal dina tegu ci képp koo xam ne danga maa ñàkke woon kersa loolu dañ ko war a moytandiku kon ñu taqoo al fadail ngëneel yi waaye wa nashril qiyam ñu tasaare valeur yi sénégalais yi amatuñ benn valeur benn góor ak jigéen a ci yem mag ak ndaw da ngay romb ci dëkk bi gis xale yu góor yi seen tube yi di wàcc silib yoo xam ne 30 ans kenn bàcc ko bopp yu coqaaral mel ne pou bi kaña kenn xam amuñu benn valeur nga romb xale yu jigéen yi sa waay ku nekk mu ngi génne ku nekk day wax ne man sama awra na nekk ci biti benn mbokk dafa bind benn baay dafa bind benn téere mooy aziwaajul fasil maa ngi ko doon defal waa université bu bu Saint-Louis jamono yële paase aziwaajul fasil mooy mariage bu échec mariage bu échec xam ngeen lu ko waral rajulun ixtaara jasadan waa ji xam nga lu mu tànn ku góor ki xam nga moom lu mu tànn ci jigéen ñi sama jabar ji loolu luñ koy doyee loolu ma junj luñ koy doyee dem duus yow loolu rek nga tànn rajulun ixtaara jasad yaram la tànn yaram yaram bi yaram kese nga tànn ci femme bi yaram ngeen mën a dund mariage ah 60 ans 70 ans 100 ans ngeen war a am ay doom yow looy doyee kii ak a njool non bët yi non kawar gi non rek jasad rajulun ixtaara jasad kooku mooy ku góor ki ku jigéen ki lan la tànn ku jigéen ki moom lan la tànn ci góor gi ah déedéet jaaro jour mariage ba mu gàddu jaaro bi jaaro jaaro moom la ko jigéen ngi tànn jaaro ñoo ngi nii toog jaaro lañu bëgg jaaro ku am jaaro rek ñu ñu ne la dugalal nga ne léegi ñaar ñi xoolal ñu sëy kii jaaro la tànn kii yaram mariage bi muy def wuy leen ma mariage boobu lu ngeen ci yaakaar jaaro ak yaram vraiment fu ñu jëm mooy li ma wax léegi sénégalais yi xiyam valeur moo fi jeex valeur jigéen ñu am personnalité jigéen ñu am qualité jigéen ñu am quantité jigéen góor ñoo xam ne ku gis day xam ne kii góor la mais xoolal xale yi góor yi ñi doo xam kii góor la doo xam jigéen la ku ci wax sax day day doo xam kii góor la wala jigéen la fu ñu jëm voilà xiyam waaye wa tanmiya haazal qiyam ñu fexe valeur yooyu ñu màgg ñu def ko ci nit ñi ñu yeewu nekk ay jullit waaw nekk ay jullit sunu benn papa dafa gaañu fan yi daay bu mag la géejawaay ñëpp ko xam biir Sénégal wala xale bu ndaw bu nekk jardin bi mu yégée ne paa bi gaañu na papaam dem dëj bi ñëwaat rek mu daw gàttandu papa ji papa ji fab ko mu ne ko papa foo demoon papa ji ne ko damaa demoon ci dëju daal di tudd turu paa bi ne ko sa maam diw mu ne ko kooku mi ngi àjjana ndax dafa baaxoon xale xale bu ndaw xale bu ndaw lan moo ko xalaat la loolu lan moo ko wax loo loolu c'est parce que paa bi yu baax la leen doon wax ñoom xale yu ndaw yooyu loolu la leen doon jàngal day xëy toog école bi école bu mag la mais moom moo koy surveiller day ñëw toog xale yu wër ko mu- xale yu ndaw ay xale jardin waaw mais valeur yooyu la ñu war a tas jikko yu baax yooyu ñu tasaare ko mais yor portable rek di tas lu bon di tas lu bon wax lu bon porte euh, photo yu bon image yu bon mbokk yi loolu dañ ko war a tas ci individu yi waaye war ko tas ci biir société bi yépp li yabqa al mujtama al islami mujtamaan mutamaasik wa qawi wa qaadir ala muwajahati al axtaar wal qiyam al fawaq dañu war a tas jikko yooyu mbokk jullit yi tas valeur yooyu ndax société bi mën a des société boo xam ne mutamaasik dañoo suudewu jàppoo société bu dëgër société bu avancé société bu société boo xam ne dafay dafay néew tey lu ñuy dégg mbon mbon yi nga xam ne moo am tey saa yoo xëyee tey tey tey bi may mujjee déglu tës tës ci suba si émission boobu tudd tës du ma koy déglu lu bari xanaa jour vendredi parce que du ma xëy may toog di préparer xutba juma sama soxna ubbi rajo bi ma dégg benn maire bu ñëw tës naan sama doom ji day màndi rek di màndi rek di ñu dóor génne ay jaasi yóbbu naa ko police yóbbu naa ko fële yóbbu naa ay may damay ñaan ku may dimbali ndax mu bàyyi màndi day day màndi ñetti butéel lay naan maire bi ne ñetti butéel lay naan waaye tamit loolu di saxaar noonu day xëcc rek yàmbaa la wala jullit boo xam ne da ngay màndi topp sa yaay di duma di dóor jullit buy dóor yaayam jullit buy dóor baayam lu ngeen xalaat ci moom tey mbon yooyu la ñuy jël di ko tasaare yu bon yooyu moom la ñuy jël def ko ah jumtukaay mbokk yi boobu mooy benn ataxalli bil fadail ñaareel al iltizam bi taalimi shar'i dañu fexe ñu taxoo jàng diine nag su fekkee ne nangu ñu jàng sax diine ci sunu barab yu mel nii mais fexe leen seen seen portable yi seen seen seen ngeen jàng ci ngeen jàng ci diine tey site islamique boo bëgg a dugg buy jàngale diine bu leer bu set wicc da nga ko fa fekk ñu jàng manhaj alwasatiya manhaj boo xam ne day diggu doomu du ñu ëppal ba du ñu wax ak nit ñi waaye du ñu mànkeel ba nit ñi di ñu yab ci digg bi la ñuy nekk anna hadihi ummatukum umma umma wasatiya la ñun ci digg bi lañ war a nekk gaay ñun ci digg bi lañ war a nekk waruñoo ëppal ba duñ ne duñ lekk yàpp duñ tëdd ci ay lal duñu am ay soxna duñu dawali oto duñu ami jabar duñu ami doom déedéet loolu diine sant ñu ko waaye tamit waruñoo topp yooyu nag ba fàtte yàlla kon ci digg bi lañu war a nekk mooy lan wala tansa nasibaka min ad-dunya wahsin kama ahsana allahu ilayk bul fàtte ne yow nit nga da ngaa war a ñëw ci àdduna imal li dunyaaka ka annaka taishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamutu gadan dundal sa diine dundal sa àdduna ba mel ne doo dee mais jaamul yàlla ba mel ne léegi léegi nga jóge fi nooy defee loolu mooy nga nekk ci digg bi nga nekk ci digg bi loolu dañ ko war a xam waaye iltizam bi taalim ñu takkoo jàng wal i'tidal ñu nangu nekk ci digg bi ñu nangoo am jikko yoo xam ne jikko yooyu ku ñu gis ci société bi day xam ne ñi ay jullit yu baax lañ kuunu la naa du'aatu samitin nekk leen ay wootekat yu noppi yenn saa yi nga nekk wootekat ci biir université bi ci classe bi ci biir ci biir ci biir ci biir nga nekk wootekat boo xam ne waxoo nit ñi kaay leen ngeen def lu baax non dañ lay xool rek non non non dañ lay xool kese benn waay dafa jënd kër mu commencé ko tabax tabax bi jóg ba mu rasé mu arrêté ko dafa ci bunt dafa ci fenêtre xam nga nit ñi rek sénégalais boo amee tabax bu mel noonu ci banlieue bi nan lañ koy def liñ ciy sotti mbalit ku jël sa mbalit gaa yi jëw waa ji tukki gaa yi jël kër gi def ko mbalit ba mu rasé waa ji ñibbisi rek ne waaw xanaa fi mooy mbëbës mu dem service d'hygiène indi police ñu ñuy ramasse waa koñ bi benn kër ci biir koñ bi benn kër police bi mu ñëwee fëgg benn jigéen ñëw ubbi ñu xool ko dafa muuru ci kaw ba ci suuf mu ne leen salaamaaleykum ñu ne ko yow ndax da ngaa mos a sotti mbalit ci kër gi mu ne déedéet man du ma def loolu man du ma tooñ police bi xëccaat bunt bi tëj ne ne ne ne ne service d'hygiène bi nañ dem kii lu ñii lu ñu wax dëgg la ñii du ñu fen lan moo waral loolu lu tax police bi am confiance ne jigéen ji jigéenu jullit la su ne man tot sondiwu sottiwu ma fa mbalit kon dëgg la moom sottiwu fa mbalit lu ko waral waaye mbokk yi comportement la ni mu ko gisee xool kanamam gi xool yërim yi ci kaw ba ci suuf bi mu ko nee ñun sotti wuñ fa mbalit mu ne ko wax nga dëgg yéen du ngeen fen xoolal loolu ay valeur la yoo xam ne yooyu la ñu war a tas da nga war a nekk benn waay boo xam ne ci école bi ci université bi doo wax waaye yaa ngi woon nit ñi ñuy ñëw ci lislaam yaa ngi woon nit ñi ñuy julli te bu saa mu soo wax kenn kaañ dem jàkka julli ji ñi lay gis rek nga leen di romb ngay dugg di génn ñooñu ñoo la gis rek bëgg a mel ni yow moo tax waa ji ne kuunu lana duaatu saamitin nekk leen ay wootekat yu noppi ñaareel ñetteel mooy al bu'du an tahrid wa isaarati al fitan ad diini wal iraqi dañoo war a moytandiku ci réseaux sociaux yi ñu xër bu baax a baax bañ ci tasaare luy indi fitna luy tax nit ñi xëy di reyante sama benn papa dafa ne ma gan bi gën a bon ci gan yi mooy gan boo xam ne da ngaa ñëw ci dëkk bi bi nga ñibbee waa dëkk bi ku nekk jël yat di dóor moroomam kon am na loo fa wax am na loo jaxase gan boobu moo gën a bon ci gan yi gan gi nga xam ne bi nga ñëwee ci kër gi ba ñibbi waa kër gi dañoo jël ay yat di xeex waaye aussi yor suñu portable yi rek di tasaare lu bon tasa di jaxase nit ñi jaxase etini yi jaxase diine ji jullit yi nangam chrétien yi nangam yahud yi nangam ñële nangam di tasaare ak mbon ba tax nit ñi xëy di taal àddina bi nit ñi xëy taal di taal dëkk bi loolu war nañ ko moytandiku bu baax a baax a baax a baax a baax beneen bi mooy muraatul amaana wa tax wa taxarri as-sidq dañoo war a sàmm ci kóllëre al amaana bët yi amaana la nopp yi amaana la gémmiñ amaana la loxo amaana la tànk amaana la waaye portable yi amaana la ëllëg sa digganteeg sa borom loo ci def ëllëg yow mal xiyaam yaa ko bind loo ci téléchargé yow la loo ci lancé message yow la image boo ci yónnee yow la amaana la sa digganteeg sa borom kenn gisu la waaye yàlla nga lay gis isa xalawta yow man fala taqul xalawtu waaye waqul inni raqib waaw boo wéetee bul wax ne wéet naa de yégal ne am na ku lay contrôler ku la gis bu yaakaar ne da ngaa wéet wéetoo waaw wéetoo Abdullah ibn Omar ba mu fekkee sàmmkat bi ci àll ba sàmmkat bi di sàmm mu koy seetlu ne ko ñun ne dañoo génnoon ñu xiif ñu bëgg sa xar yi nga jaay ñu ci benn ñu lekk mu ne moom ma ko mu ne ko non boo demee nga ni borom till yi ñoo ko fàdd sàmmkat bi ne Abdullah ibn Omar ayna Allah ana yàlla Abdoulaye ibn Umar téye sikkim bi di yuux naan qaala raa'i ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla sàmmkat bi nee na ana yàlla sàmmkat bàyyi xel yàlla ba liñ ko jox mu ciy xalaat yàlla mu bëgg ko sàmm ba dara du ko laal ndax ana yàlla waaye portable bi xalaatal ana yàlla sooy woote ana yàlla image yi ana yàlla photo yi ana yàlla message yi ana yàlla ci cinquième bi may jeexale da nga xam ne jeexul mooy xurmatul tashhir wal isaa al fahisha yow jullit war nga rus yor benn image bu bon benn vidéo bu bon benn photo bu bon benn message boo xam ne lii xam nga ne jaaduwut nga koy tasaare effacé ko suñ la ko yónnee sax effacé ko am na benn groupe whatsapp bu ñu am dama ne mbokk yi ku ci dugal image génne leen ku ci dugal photo génne leen ko ku ci dugal rek dara rek génne leen ko groupe bi bu leen sax négocier jullit noonu lay mel jullit day xër ci diineem jullit day xër ci boppam jullit day xër ci këram jullit day xër ci mbokkam jullit day xër ci société am bu ko dara yàq yàlla nee na ñi bëgg lu bon tasaaroo dinaa leen buggal kon ñi ko def nag inna lazina yuhibbuna an tashiha al fahisha lu leen yàlla wax walahum azabun alim dinaa leen buggal buggal mu mit léegi ñi ko def nag kon maa ngi gàttal kàddu yi nga xam ne bëri na trop trop trop yi des tomb yu bëree bëri la mais liñ jot a wax ni yaakaar naa ne war nañ cee jëlee njëriñ ñoo ngi jéggalu juumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.